par contre li ñu tëj ñun dafa bëri sous région bi ñu ngi fi sénégalais yi rek ñoo fi nekk di tëgg. sénégalais yi nekk fii aussi di produire nga xam tey su état bi libéré woon loolu rek ni léegi Mali yi partout ku ci am sa or demal Sénégal ñu produiral la ko légalement comme les autres pays. dafa war a dugg comme devise buy dugg rek ñoo am nga dugg ñu defal sa papier nga ñëw liggéeyalu génnaat dem déjà loolu. dafay dafay dafay dafay yéegal euh, secteur bi te li nekk nag ci bijoutier yi nga xam ne actuellement dañu yor seen i atelier boo ko xayma woon li ci secteur bi li ciy yëngatu mat na cinq mille personnes mm-hmm. tey koo dem mi ngi jooy ni mu mel noonu ci or bi peut-être contrairement ak gal bi argent blanc bi nga xamee ni euh, dañ koy importer c'est mm-hmm. la même chose mm-hmm. tey même bijoutier yi tëgg argent amuñu lu ñu tëgg. parce que tey jii fii amul fenn foo mën a demee aussi fu legal pour nga jënd argent. amul waaye léegi yee may gis ni ñoom ñoom tamit nekk ci marché noir bi. Mm. ñoom li ñuy pro li ñuy extraire fu ñu koy jaay. bon ci li ma dégg li ñu wax je pense que loolu mooy dëgg li fraude la dañuy dañuy jël jëm jaar ci sous région bi def seen i bon je sais pas fexe ba am seen yoon yu ñuy jaar rek évacuer or bi mu dem. Hmm. loolu fotu état bi la. parce que état bi moo ci war a taxaw ba nga xam ne bijoutier yi ñu seen bopp. Ah. dinañ ci gis seen bopp ba nga xam ne parce que da ngay génn tu prends un avion dem jëndi feneen mais n'empêche que fi ngeen di dem di jëndi par exemple c'est toujours moins cher bu fekkee da bëgg ut fii Sénégal or brut bi produire ko encore doog a jaay. ah mais attends madame imaginez tey aujourd'hui bu neexoon président Macky la mais Sabodala Gould jaay ñu or. lu tax TVA levé ko. kese partiellement bu la neexee nga ni ok dem ngeen jot dem leen. te lu tee dina jot ay redevance am. Hmm. ah mais mais day gagné plus parce que ñun or boobu ñuy produir fii. bu ñu ko ah. produire ba pare état bi da ciy gañewaat te dañ daf ñuy jaay. c'est la même chose. Hmm. tey or boobu muy am paaram la moo ko moom mais li ma gën a naqari ci affaire bi du mbir mi du mbir moom xam nga mbir man la or bi ñuy produire fii c'est pour les sénégalais. Hmm. dëgg loolu dëgg. Sénégal yi ñoo ko moom Sénégalais yi ñoo ko moom. waaw waaye buñ ko soxlaa dañ koy jënd loolu mooy yoon. Mm-hmm. léegi Sénégalais yi ko moom. mais jox ñu leen moyen boo xamante ni dinañ ko mën a jënd dem ci bijoutier bi mu mm-hmm. liggéeyal leen ñu ñu consommer ko. bu gën a simple. léegi nga dem voyage nga dem jëndi jox tailleur bi ne ko ñaawal ma. maa ngi ñëw tegal foofu sa loxo tegal foofu sa loxo léegi nga jël fii avion dem jëndi bijou mais madame xam nga ni c'est plus cher. c'est plus cher tey bu fekkoon or bi am nañ facilité pour jot ko. dafay am ñaari vole benn bi mooy mën naa am moyen man bijoutier bi ma jënd sama or produire ko samay design bopp. Mhm. te loolu macha allah dañ cee xayma loolu na du rafet sax daf suñuy design teg. yow boo ñëwee nga xool li la neex nga jënd danga may fay or plus main d'œuvre mhm. mu yomb. Mhm. kooku jigéen ñi même ñi consommer or il faut ñu jug ci loolu. parce que tey ji or bi ñuy jënd c'est trop cher. cher na moom. te ñun loolu arrangé wu ñun bijoutier yi te même bijoutier yi am moyen nga xam mënoon nañoo investir ci industrial industri industrialisé. Mhm. bijouterie du ñu ko def xam nga lu tax. Mhm. parce que soo ko defee fan ngay jëlee matière première. boo liggéey matière première bi mooy problème da ngay perte léegi li ma jaaxal mooy. Hmm. yéen a ngi dem ba bitim réew di jëndi or. Hmm. est-ce que or bi ngeen di jënd bitim réew sax jógewul Sénégal. mais bien sûr parce que société yi fi nekk di di di di hmm. génne or bi. mais ñoom lañ koy jaay société étrangère lañu ay Canadi ay ay ay Canada Suisse Suisse. Canada ak yeneen dëkk yi. yéen a ngi dem bitim réew te boo deful nang or ba ngay jënd bitim réew boo deful nang circuit bi Sénégal bi yëpp circuit la jógee. fa mu dooree Sénégal la sëñ bi sëñ bi ça affaire bu yéeme la or bi fii lay jógee ñu yóbbu ko Afrique en quelque sorte mais nañ jël Sénégal mu dem bu demee fabrique ya ne foofu. société yay transformé or bi ñoom seeni dëkk am nañ fu fulaak fayda gu toll ni dooleel leen tey dama la jox benn exemple da nga gis mhm. tey benn entreprise boo xamee ne dafay produire day day day day fabriquer ay bijoux mu nekk itali wala fu mën a nekk moo xam entreprise boobu du am or du am dara xam nga lu muy am ay mhm. employé lay yor mhm. yor ay matériel am teg équipé mu am matière première. Dubaï liggéeyuñ dara. Mhm. parce que cinq pour cent peut-être la ñuy liggéey localement cinq un peu moins. Mhm. dañuy woote Italie jox ay design li laa soxla liggéeyal ma cinquante kilo exemple. Mhm. facture proforma. entreprise bi jël facture proforma boobu nga xam Dubaï la jógee dem ci comptoir d'or bi. jox ko ko mu xool ko à ah, telle moo la commandé cinquante kilos tak am cinquante kilos dama liggéey. lu tax mu koy def état ba lu tax muy def loolu xam nga ko dafa xam ni yaa ngi ay employé lu mu bon bon yor nga loo ramaat cinquante personnes yu mhm. nekk sa fabrique mhm. alors que ñooñu suñu liggéeyul moom ci charge am la ñuy daanu loolu lay daw moo tax boo ñëw mu yëkkati cinquante kilos or jox la admettons li la kilo bu nekk teg naa ci cent euros mhm. mooy sama marge cent euros rien nga yóbbu jox tas sa atelier gars tëgg mu pare nga jël paqueté defar sànni du bàyyi